di leen ndokkeel ci weer wi di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla na yàlla def lépp muy yiw ci ñépp ak teraanga ak sutura jëkke ci ndokkeel gi sunu xalif Sidi Mouhamadul Mokhtar yàlla na yàlla dëgëral ko xalifa yi nga xamante ni ci réew mi ñoom la yàlla def ñu ŋànk diine ji yàlla na leen yàlla daar dëgëral leen foofu kilifa diine ne ci réew mi nu ngi yeesal sunu cant di yeesal sunuy ñaan jëme ci ñoom waaye di sàkk ñoom itam nu ñaanal nu bu baax a baax ñaanalit kii di sunu njiitu réew di président Macky Sall moom it yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla dooleel ko ba li réewum Sénégal nam ma ci ñoom muy sutura ak taraanga yàlla na ko yàlla defal jaare ci moom it nuyoot ñaanal la classe politique moo xam opposition la moo xam ku mu manti la société civile les mouvements de femmes jeunes ñëpp mu ngi leen di ñaanal yàlla lépp lii Sénégal yàlla na lépp ay jàmbi ñëpp nuyu sunu kilifa yi Cheikh wax na ko sànq dëkk bii di Cambérène dafa am ci lu mu toog li mu toog nag sunu maam moo ko rëddoon bàyyi ka fi duñ ci def lu gën ko suuxat gën ko dëgëral lu jëkk ñuy am meer boroom dëkkal fi defoon ñun nag ku ne xam na ni Cambérène quartier la ci Ndakaaru walaw Cambérène mooy capitalu kër Seydina Limaam fii ak ay dëgg kenn mënu ko dindi ba noppi yamu ciy di kër naa ne mooy capitalu diine ci ndakaaru ndax nag mooy kër cosaan ci Dakar ci këru diine lu mat a bàyyi xel du ay caaxaan lu wax pour wax taarix dafa am lu mu fi teg bàyyi ko fi kam Medina Seydina Issa ndikk bu fii loolu al yàlla kon maa ngi tàmbalee monsieur le maire Dund ak conseil municipal bépp di leen ñaanal yàlla na santaat leen ca na ngeen ànde yéen ñëpp kenn xàmmewul kii yéen ñëpp intérêt dëkk bi teg leen parti yëpp a ngi seen biir mais yàlla leen yàlla dëgëral tey tey ànd ak maam mëgëy maam mëgëy du ko ñu présenté fii ndax seen dooma seen nangam waaye dëkk bi nag ni ko sëñ Cheikh waxee bay du raana nga nëlee toog isaa ngi ci wetam ñaar mooy li am du ni dañu fee toog rek mais dañ ko taxawee nag du doog a nële xaw ma ku mënu mérité wul yor dëkk bi du ñii suñu imaam yaa nga nee libaase nga nële libaas loolu suñu imaam raati damay jaar ci moom nag kuy imaam yoon nekk suñu nuyoo ci ñoom sant leen gërëm leen ak taxawaay bi ngeen am ci jàmm yàlla na leen yàlla fay sant jaar ci yéen dëkk bépp sant nag njaboot gi rawatina dëkk bi su ma nee njaboot gi mooy xale yi ñaari at a ngi ni ku xool xam Cambérène xam ni xale yi am nañu taxawaay boo xamante billaahi watallaahi yàlla dina leen taxaw am na nañu mbégte ci seen taxawaay bu baax a baax a baax waxtu wu dëkk bi soxlaa kamp xale yi taxaw noonu xale yi ñooy jàkk ji ñooy fii ñooy fee ñooy fépp bu dëkk bi soxlaa ñu taxaw kon bu diine ji soxlaat kenn mënu leen ci jaar ci yéen nag nuyu nag communauté bépp mais jaar ci yéen nuyu jullit ñépp sant sëñ Cheikh mooy daara ji ajawali ak libaas mi nga wax libaas mbay naka jekk libaas macha allah yàlla na yàlla gën a dëgëral daan waleet ak ñi mu ëmb ak ñi mu jiite ñan libaas mi ngi nii toog ñaar dinaa leen di seddeel ma man fu ma ne jërëjëf El Hadj Abdoulaye Thiaw su ma geesee dama naan jërëjëf El Hadj moomu Saxir Gaye ñaar ñi ñoomu seq de loolooy li am na fu ma nee jërëjëf Ablaye dinaa gees ni jërëjëf El Hadj Mohamed Sakhir Gueye ko ma joxoon àdduna am li ci biiram parce su may dee loolu laay wax lu leer laay wax bi ci des diine la ñu wax dinaa ci ñëw de dañoo jóge ci xew-xew yu mag xale yi am taxawaay bu rafet rafet rafet rafet rafet rafet rafet rafet ma gërëm ci ñoom ñëpp le comité d'organisation

yàggul am na ku bind ci diine ji xale yi tontu nañu ko ci tontu ñu teggin ak xam-xam te mbedd mi yëgu ko loolu ñun loolu lañu soxla saaga koy saagaante xeex tontu nanu nit ku am xam-xam walla ku am nangam te coow barewul newul ci mbedd mi ci xam-xam teg te ci xam-xam la ko xale yi tontu ñu ngi nii toog foofu la ñu toll kon jërë ngeen jëf sëñ Cheikh njaboot gi ñoom ñëpp nag dajaloo macha allah ndokkeel la ci bis ñaanal la yàlla nag yàlla na yàlla macha allah teeral parce que liggéey bu deroon ni ngeen ni nangam am na lu fi jaaroon mu continuer dem mais yàlla na yàlla gën a dëgëral jàppale leen jaar ci yéen nag luy njabootu Seydina Limaamu man. xawma kër diw ak kër diw ak kër diw man bàyyi lay la kon li mu am lépp ñu ngi gërëm ñëpp lu ngi ñaanal ñëpp waaye ñun ñëpp itam jël sunu cant ak sunu ñaan jëme ci yow weeru koor bàyyi njiin moo ma daan doxloo parce <laughs> bàyyi njiin ba noo muus ba weeru koor journée bépp doo gis su ma ñëwee pour ñëw njóobeen si li may xam ni waxtu wi jot na damay jéggi taaw gis bàyyi njiin sept heures nga koy door gis mu taxaw def nii jàkkaarloo géej gi sept heures journée bi nag doo gis bàyyi njiin mënoo fexe ba gis mais su may egsi fii su ba su may xamee ni heure damay jékki rek gis bàyyi njiin ci cig montagne <laughs> waaw loolu lépp e njaboot gi ak ñëpp nag ànd vraiment di la ndokkeel macha allah Idrissa xale yi jërë ngeen jëf yàlla na yàlla defal leen tawféex en tout cas e, sant yàlla bu baax gërëm it cheikh kilifa yu baax yi maa ngi koy wax sàngale ngay ñoom Samba Camara ñeneen Alioune Ndoye ak Diouf Sarr ñoom ak gaa yeeg parce que maa ngi ci leen ak ñoom ñëpp muy kër gi. di ñëpp di njaboot gaa ñeneen ak ñeneen leen ñaanal yàlla ku ci ne xam nañu la yaay kan xam nañu luy sa taxawaay yàlla leen yàlla taxaw e al islaam diinun wa muamala l'islaam diine la en tànk diine waaye jëflante la te sax booy xool jëflante mooy gën a dëgëral al ndaxte l'islam jikko rek la moo tax bu ngeen xoolee dañoo ne nag ci jamono joo xam ne jamonoy xam ak jub la ñaar ñiit ñoo të tënk jamono fi ñu toll xam ak jub fi la jamono tollu tey Seydina Limaamu Laay alayhi salaam bu ngeen demee cat al xutbatul ula fa jëkk tàmbalee dafa am lu ko fi andi ba mu ne uusikum بالاجتهاد في طاعة الله ورسوله وتوكيد إيمانكم وتعامل الخير وتحابوا الاجتهاد فرل توب يلا عبادات سنة مونيول وان ريرال للعبادات باي لاي تك نوفا waye lamu nak moo ni nag na ngeen jëflante te bëggante waaye loolu lépp nag gëm yàlla moo ko war a peeg dëgëral ngëm mooy nekk fa yàlla bëgg nga nekk la mu tere nga sore ko loolu mooy dëgëral al bay lay ñaareel bi ca ñeenteelu xutbaam uusikum bi taqwa lahi al azim moom lu mu wax rek dina ko waxaat feneen dañu toll ci jamono wax danga koy leeralal ñi nu ko wax ak fi nu ko waxee baril na ku naan sëy naa limaamu nee na bu waxee yàq la bàyyi laay waxoon moom waxi boppam la fa teg ak bakkenam ba ci jëkk lu nu fi andi xanaa jaamu yàlla wa ma umiru illa li yaabudu llaha muxlisiina lahu diin moo nu fi jëkk andi mooy jaamu yàlla teet almuminuun والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم لي مونو في أندي موي عبادات دوغنا أك لا توكل ايمان تقوية الطاعات واجتناب المعاصي نغم غو comme ni mako waxe fa yàlla soxla nga nek fa na nga fa ne wala bok nga jéem kë moy toog lépp lo xamanteni ma sha allah mom la yàlla bëggul moy tagat bakken ci top yàlla te di jëfe yiw fialul khairat kon inna alladina qaalu rabbuna allah suma staqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxzanun li ku ci xas bu dugg ba joxeel yàlla looy tiitati tiitaange ci kan ak ci ñan ak ci fan ci kan ak ci ñan julit bu ko yàlla doyul mani bu muus yëngoo mu daw lii ñu leen di wax suba ngoon mu jaral sayidina limam mu jaral ko seen ngëm dëgër bi maanaam doyaloo seen borom nit ki junniy borom mënu la nekk ci moom u nga tàggat sa bopp ci benn borom moo tax bàyyi naa yow tam ca ca baabu nasiha ba mu ñëwee ca yàlla mu ni an tuwahidahu téeméeri junniy borom mënu ne ci nit doo nii rekk waaye ba nga nangoo al qahaar muy allahu subhanahu wa taala rabban mais war ngaa war a mën a dëgër nag taxaw gis nga mais li coow li li muy bari lépp ak lépp nag ragal yàlla boo koy lal ragal yàlla nag du taxaw sëy naa sol yu weex lan damaa ragal jaru ko yàgg sa borom pour nit ñi rek déedéet bari na ko naan damaa ragal yàlla nga xool ko mu def bu defee rek nga xam ne diw la ragal ñi yàlla ah kañ fekk diw la ragal ñu yàlla dafa at mu jot mu wax ko fii dee du la gaa yi moom lañu ragal te dee day dee dee ji boppam day dee bu reyee ba pare yaa malakanu yàlla nga kaay ñam dee waaw yow dee di dee nga ñimiñ ragal dee ñimiñ kiy rey dee tax usikum bi taqwalaay al azim bi ma amar wa anhaakum ma naha llahu anhu loolu Seydina Limaam wax nee na nag ku yore de ku yore nanga man Seydina Limaam maa ngi leen di dëgal ngeen gën dëgëral seen ngëm ci ki nga xamante ni mooy kenn te kenn du ko ñaareel mooy yàlla lu mu ni foofa la fala lu mu ni déet bu leen fa kenn fekk du neen ñu yeewu rek ñu naan noonu waa waa laayeen bàyyi laay tuddul laayeen tuddul dañ ko doon reetaan kañ ñanaan waa laayeen a nga bi maanaam dañ leen doon reetaan ndën ci tudd yàlla lu tubaab bi dem ba def ko ci rapport am bind seen cri de ralliement laay laay laay ñun yàlla moo nu jig lu nu def te du lu yàlla dañuy nërmeelu bu dee contrat bu ñu signé la yàlla la nu bàyyi lay jox laay la nu bàyyi lay ma ngi doon sikk kon wa inna haasihi ummatukum ummatun waaxida wa ana rabbukum fattaxuni kooku mooy yàlla te kii lanu sëy naa limaamu jox xar bi jox nu ko mooy sunu borom mooy yàlla yaa ayuha allazina amanu ittaqu llaha wa kunu maa saadiqin kii lanu bàyyi lay jox kon taskiyatu nafs bu ñu bëggee tàggat sunuy bakken nag لك جني دغر موي الاعمال القيره الصالحه لومو كاوي كاوي كاوي نجيفي وما تفعله من خير لا القران واخ فان الله به عليم لي نبغى وخ باي لاي دا عبادات dugg ci muamalaat ñëw ci axlaaqiyaat mooy ñett te lii mooy lislaam tudd na ibaadaat tudd na farata yeeg nangam yeeg nangam yi dugg ci bakken defar ka parce que bu dëkken bakken bu defarewul jaamu yàlla du fa ne lu ne mu dell ko place waaye retourné nag ne wa taxaabu mais bëggante leen gis nga li coow li bari lépp jàkk ji fees béréb yi fees nangam yi fees te sunu borom nga ni coj di lu xool di xool lu nuy xalam te kenn man nag sama morom kenn xamul ku nekk fii la ngay lu sa xel ak la te yàlla dégg na lépp waxtu wu ngeen toogee yéene yi gën di rafet jëm ci ku nekk ci yéen yàlla di leen déglu bu ngeen ne allahuma rek wallahi yàlla def ko kon ay jullit ab ku dul jullit na njorte yi rafet na ñépp a yéenante jàmm na nit ñi bëgg jàmm na tipp na dagg ndax dinga nga ko fekkee kon li julli gi neex li zakkaat di neex di lépp di neex dama gëm ni yéenante jàmm ko ëpp solo waaw maa gis gaay yi def rek lañuy def wala damay topando te ya digga garab tok ni mom lay jam way lu ci sa yoon du fay ba kay fay ak diga xagn kon nit ngay jëk tambalé di wacce ba ci suuf donc waaw loolu lepp na nga dajalé ko réewum sénégal fi lañuy yéwo fi lañu dëkk li fi gëna siiw moy tariikh te ku ne xam na bàyyi lay lam wax ca nga xam antum wa hum gisit ki ngeen tudde bis bi muy alhaaj abdoulahi thiaw yàlla na yàlla yokki leeram ak kilifa yu baax ya fa nekk yépp gis ni mu doon taxawe ci lii feeñal ka ci jàmmalaay andil leen ma nang mu diw andil leen ma andil leen ma andil leen ma suñu réew loolu moo fi cosaan ci lislaam ay këri diine yu baax la yàlla def ci réew ku xeeb li nga am nag yaa xam nun li yàlla def ci réew mi ci mbaax ci ëtt bu ne ak ci kër diine gu ne nangu noonu ko bu nu amee dal ci suñu réew ba waxtu wii ñooñu joué nañ ci rôle yu bare bare bare bare tey li Sénégal yoroon ni gaa yi ni baaxul tudde ko ay téere naan kufru la yéefar la tey fañ ko doon waxee ñoo ñoo bëgg li ne woon ci suñu réew ngir ñoom ñu am jàmm waaw ñoom nag ñu war jël suñu ba sànniwaat ko jële yu gaaye noo lànk loolu ku taxaw xool këri diine yi fi ne ci réew mi xeeb leen mooy xeeb nga yow li yàlla def ci yow te mënoo leen yàq dara kon nu ngi ñaan di gërëm sunuy këri diine yépp nag ci réew mi yow mi toog fii alaajab sëñ Abdoulaye tuddale sëñ Cheikh Mbacké nga laal fële sëñ euh, euh, comme Abdoulaye nekk fa ay maam jaara ay nag nga ñëwaat Seyna Issa di waajuram tudde sëñ Mouhamadou Mansour mu mag ma ah sëñ Mouhamadou Fadel nekk ci nangamam Adama ay sëñ mu Cheikh Omar na ci këram waaw ndax ñun ñoo gën a valable Seyna Issa mi nga xamante kon li fi nekk mani téye leen ko xaw ma nag keneen mais yéen fépp fu ñuy téye kër diine senegal kenn wala faji seen bàyyi loolu la fi liggéey ba am kenn ki kenn gën. كن المحبة الصادقة لا بد أن تكون مسبوقة بإيمان يتم اللقاء حول تفعل جنوح تموار نكت نتني بمو نكلو سيبرفيسيال ني نتو خولي تي ننت ني بغن تتيال تخ ينين تجام تيال تخ لي باي لاي وخني waa ay bëggante leen ndax waa àjjana dañuy bëggante toujours moo wax leen ko fii mënu leen a noonoo wala bëgganteeg naxaate nekk xarit àjjana ku ñu ko wax dañ lay nax kañ la bar Firawna war a jubóobu Moussa ci àjjana ci nan man la ne aqillaau yawmaysin baaduhum li baadin aduw illa almuttaqin allazina kaanat قوتهم وصحبتهم في الدنيا قائمة على التقوى والإخلاص يظهر أثارها في الدنيا والآخرة أيضا نيغا خامتني سين كان ما شاء الله دفا سل ست تي يالا رك لالك تي ادنا بولين نيهي الله نيوي روفو جيجي نيان بالي تي اجانا ولا ابارتمون كون غاي وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله إن قطع وانفصل كن لولو فوف لمبير يتول بوكا دفي لا ينتبه إن الرجل لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء ولا يخالف قوله وعمل ويأمن جاره من بوائقه لولو فوف لأدنى تولو أه. كن لي عبادات دي تكون خمنا مكانة الصلاة في الإسلام julli ni mu amee nangam ci diine waaye man lam tanhaw salaatu an alfahshai wal munkar mun lam yasdid min allahi illa bu'dan mais feesal jàkk ji imaam ñoo ma ngi ni toog xaya ala salaa xaya ala falaa di xëy di jiite jàmm ni am na ñoo xamante ni guddeeg bëccëg laa ni ñu ko ci jàkk ja waaye bu nu génnee birit ci jàkk ji yakat la fa defon suba bo ngon ñu entre quatre mille ngay ne jàkk ci kula mooy liñ fi wax legi dang fay del dang fay doliko ci ragal yalla waye doliko koo ci jikko li nga jele ci jakk dafa war a ci mbeddemi neena ah loolu bu amul rek mo sam gis nga kon yiw macha allahu gars yi ba ñu jaamoo yàlla nañu yéeneente yiw ak i teraanga ak lu baax ah yaayu lazina amanu irkau wasjudu waabudu rabbakum wafaalul xayr laallakum tuflixuun <laughs> gars yi yiw ci la jëflante ci la loolu yaakaar naa ni mooy suñu taxawaay fii di gën di gërëm di ñaar di sante yalla bu ko defee nak responsabilité bu tuti amul nee len mu ngi ci ay xam ak juk lu fen di sey naa limaamu dañu loon limaamul maadi yooyu kay jubal ja manam ke ma ke jam ñay xam ak jub ca woo alay sa xet ngay wax lo ko fi andi alhuda kon jaamu yàlla lu mu reey reey te jëf ju rafet yaatu na ca la mbëggee la nga ca leneen nga ci mu ni chartaani mutalazimaani nee na kama anna xusnul muamala dalilun ala sixati shaairi diiniya jëflante bu rafet nekkin dafa yaatu ci wax ak ci jëflante xoolal tey li toog fii tey bu dee ci wàllu àdduna comme ni ko gars yi di waxee parce que man dama bokkul ci tendance u àddunaa ngi nii àllaaxira ngi nii yow da nga faa demagul li la yàlla xamloo yem ca bëggee toog naan waaye àddunaa ngi nii waa yow fo nga fan nga bokk waaye àdduna ak àllaaxira yàllaa xam moo ko moom waa adduna waa àllaaxira waa te yow ak ah, nag te ñoo la gën bëgg adduna foof foof adduna eh, adduna amul solo waaye ah, ak am solo moo la tey nelaw am na solo de rawatina yéen xale yi ku leen ko yat amul solo man mi la koy wax nit dafa ñew sama kër wallahi barta amoon na butu joyu tok wa wa mu ma fekk jardin ma tok muy wax rek aduna ni man nga diw man ko fi maa mom man nga gis nga suba benen étage lay tek ci kaw man nga wa man nga demal nga liggey tok na lan man ne man suba lu mu gën rafet rek ma def xam nga lan la rey saw nit say doom ñuy dox yàlla nañ ci yàlla musal pourquoi rey ay ambition ci xale yi buñ ko am yow ban malaaka ay robot dañoo am fonction yu leen yàlla jox yow amoo ko nit yow balaa ngoon nga xandoor suba nga nelaw ñii duñu nelaw duñu nangam ay baadun ma amul ruun fii nangam ay robot la yow nga ni te nga dëkkal fa sa bopp doo toog parce que mënoo faa ne te doo malaaka te doo nit kon lan nga gis ngeen seul le travail ak xam ak ràññee billaahi fi la àdduna toll yàlla ni yàlla musal nag ci aljahl li ann aljahl yunaafi at tawxid gis nga réer baxul reer mënu la ànd ak tawxiid bi Ya lay wax yàlla faalam annahu la ilaha illa allah la yàlla ubbe wal xalam wa ma yasturuun aqsama bil xalam bi moom yàlla nga naan <laughs> xale yi bu leen xam mais fii tendance yi àgg tey ci àdduna ci xam-xam ak ci wuti ak ci am lu baax ñu xañ la ko yow ah fii day sama baam Seydina saa moo ko waxoon sama baay àllaaxira leen ñaanal waaye mën man Seydina Isaa teg naa ci àdduna moo ko wax fii mag ñu naan kaan tool yi mu ne yenn tool jeex na fi nangam suppi julli yi faa julli gi la ca topp dawal laa ilaha illa allah ka foofu pour permettre ñu war a xëy dem liggéey yi te génnul cadre laa ilaha illa allah li fi ne yëpp mu def ka fi ba lii ngeen jàkkaar lool tey mi ngi sëy naay saa ngi te yeneen a ngi ñëw yu ko gën a garaaw mu yegg si mi ngi nii traversé ka mi ngi ni tëdd fii yi ngi koy rombay dem ak a ñëw kon ku leen ni ambition amul yéen xale yi naan leen fii la adduna yam da ngeen naan ka fu mu tàmbalee rek ngeen laaj ko ki la bëgg la yam loo fii ci adduna nga ne waaw adduna fan la tàmbalee du la tontu xamu ko nanu bàyyeeg yàlla li ma moom kon nanu gën a góorgóorlu ah Seydina Limaamu Laay al in raaytum من هو خير مني امرا او اكثر نهيا فاتركوني واتبعوا وعينك وسلام على من اتبع الهدى وخالف النفس والهوى لي في وخلب ما ديغال لينك تري لين تيول لينك بو نين ديمي بان سينا لي مام كو غن لي toppuma lu may tere dem leen bàyyi leen ma te ngeen dem ci kooku nag waaye gis na fa mu tërale wasalaamu nag moom wàccoon ñun ala man ittaba alhuda wa xaalafa nafsa hawa mu ne nag mucce ñeel na bàyyi laay wax ba ngeen gisee ku ngeen ni moo ma gën li may digle man Seydina Limaamu ëpp ma lu may tere mu ni bàyyi ma te ngeen dem top nak ko xani ni ëpp lolu lépp kon bay lay xëccoowul mom ak njub la soxla ci jëlit ni ak ragal yalla la soxla ci ñoom du pour moom moo tax muy tëj nag mu atta ca suuf le euh, nu ñu kaa ti xëc génne responsable leen wasalaam nag mucc day ñeel nak top ak njub té nak tek fa bakkenam ak po وسا على من اتبع الهدى وخالف النفس والهوى كن لي لب بكن جاحان اك لنين دوكو جوخي اه فيني تولونا إيه، ناخ خم خم كسي بو اي جيكو يو رافيت اندالول ناخ ديناي جاين العلم النافع من ما قلب قاشع ان الذي لم يخش رب العالمين من ليس بعالم ولو افنى الفنون لم بام بون توبا واخ كن فاعلم انه لا اله خم تيلا تي موي فوندماو نك ديني جي ديني كين دوكا فاتامتيكو تي توغ نانو نك سوني ماك واخنا كا يوف bi ñu liree xot sunu discours en arabe bàyyi laay bi muy bindalu xutbaam yi xamoon na ni daanu ko sosal ginnaawam ba mu tëjee ba ñu bindal ko ba mu mu ko ñetti yoon bàyyi laay fawul fawul lii laa wax démb man kazzaba alaya mu ni fal yata baq ba waa maqaroo naa la yonente bi wax xamoon na ni dañ koy suufal ba mu xajatul wadaa ba mu téye moom yonente wax ah, wër wax tënkaat diine ji joxe ka nag fal yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib loolu la bàyyi lay def fii geesu xutbaam yëpp ñun mu delloo ko ci arab alxuraan na mu ko binde woon defe naa maamu ñam ñii ñoo binde loolu ñoo def loolu kon xam-xam ak lu ko jiitu da xool xool leen suñu maam Ibrahim yaa abati إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا واجرم لك ولك ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يونت بي صلى الله عليه وسلم وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كن gaa yi lii ak lu ko niru ak leneen moo nu fi indi woon indi fi sunuy maam ba ah bàyyi lay woote nag sunu maam yi bàyyi la noo amoon indi ko topp ko sama bàyyi libaas Jóob yal na yàlla yokki leeram da wax wax bu am solo boo waxee munu la ah waalo la nu jógee lu ne nekkoon na fa waaye amuñu woon aji boo daay aji boo daay lay moo ñu fi indi lool nun ñii tim na aji boo day naan moom sunuy maam danoo gàddaay ñëw fii lenn lay dinaa ko wax naa ko démb fa ma nekkoon du ma ko permettre ni ak koo mën a doon sunu maam fii ba bàyyi laay ne maam gëm ko tey nga ni ñooñu duñu xeewlu fi koo waxul dëgg kii bu doon caaxaan du tëdd fii dama ni def leen nii jékkatiku leen ci kaw xaw ma kan la ñuy joxañ pas dama ni lo mag ñooñu ñoo tëdd fii nag diine ji bi ca bàyyi laay dindee li mu ci dindi nañ ko fa bàyyi yoruñu diine di ko xeexi ay sant kon ñun ñooy ñan kon kay ñoo jëkk a weddi bàyyi laay diine ji diine yàlla inna akramakum indallahi atqaakum bàyyi laay dafa am càll la gu mu leen jox mooy yàlla na leen jox képp ku leen xañ yàlla bàyyi leen ka te dem ak yàlla ku leen ko bëgg xañ bu leen ko ruse say naa bu leen ko ruse kenn su ma leen bëggee war sama bopp ne leen fa wëriñ dem dem ci jàkka teeg yàlla yàlla boo fi ne tey te moo fi ne ëllëg man ak sama morom liggéeyuñ fi dara bu jar juróomi moom yàlla kenn moom fi diina ji diina ji kenn ko moom mooy subhanahu wa taala moom la fi Seydina Limaamu na ngeen ci tey ku ci ne la man ci lu baax def ko aqulu qawli haza wa salaamu aleykum wa rahmatullah